maqaama Cheikh Tidiane mboolem waxi Cheikh Tidiane moom janoo naag luy dëggal loolu loolu li muy tekk mooy ku xamul lii ku mënul lii rek mënoo doon Cheikh Tidiane ndax nit pour nga doon ko da ngay mos ay maqaamam yëpp waaw te it doo yem ci dégg ko rek waaye danga ci am yaqin goo xam ni janoo la goo xam ni janoo farewut ko kaw moom nag dem na ba yàlla wuññil ko kiiraay yëpp. mboolem maqaama gu Cheikh Tidiane wax ci boppam wala mboolem maqaama buy wëlli wax ci Cheikh Tidiane lépp lu ñuy wax Cheikh Tidiane te muy dëgg moom jënoo naag loolu jënoo goo xam ne jënoo mënatu koo kaw xemut si ko daf koo mos ba yëg ko dund ko loolu rek moo tax mu mën a doon Cheikh Tidiane loolu moo tax mu mën borom fayda pour nga nekk borom fayda foo nga yegg ci maqaama boobu pour nga doon Cheikh Tidiane foo ñu wuññil la mboolem maqaama bi. dana waral daan na wax ne njëlbeenu seyroom dem na bay wax lu ko Cheikh jaani sutee waaye mu ne wasaatatu gi la li mu xam ci Cheikh Tidiane la jógee loolu rek la ko sutee loolu daf lay junj ne moom moo doon Cheikh Tidiane waaw ndax lépp lu nekk Cheikh Tidiane rek na ci moom si misaal dafa mel ni rek gutt bu am soow nga jël ko sotti ko ci beneen gutt gutt bu njëkk ba mboolem la nekkoon ci moom ci may ci lépp rek gutt bi gis janoon euh, làq na ko te yëg na ko noonu lay mel waaw la nekkoon Cheikh Tidiane ci may ci yëg-yëg ci maqaama def ko jël rek sotti ko Cheikh Ibrahima benn yoon loolu rek la loolu moo tax mu mën a doon Cheikh Tidiane waaye bu fekkee da ngaa mos dara ci xaali Cheikh Tidiane yi lu bari réer la ca yow doon noo Cheikh Tidiane doon noo Cheikh Tidiane te mënoo nekk borom fayda loolu rek la bàyyi di junj ci yow su ko defee. mu ne qultu wax naa walhamdu cant lillaahi ñeel na yàlla hamdan cant kasiiran bi aji bëri tayyiban bi aji teey mubaarakan sant gu barkeel jaziilan ji aji rëy jamiilan bi aji rafet daayiman cant gu sax bi dawaami mulkillaahi si sax nguur ak yàlla gi bàyyi ne wax naa ne qad shahatu seede naa fi dalika almashari ci boobule janoo al azimi bi aji màgg laylatal ashir ci guddik fukk min shahri rabil mawlid ci weeru gàmmu laylatul ahad guddik laylatul ahad guddik sam guddik dimanche dégg min am alf wa ci gàddaay gi ala muhajiri ha yàlla nekk ci ki gàddaay ci taarix boobu atamu tahiyati gën saa mat ak nuyoo wa salaami ak gën saa teeg sa nuyo nuyoo te mooy sëlmal wala jàmm bàyyi ne janoo googu ma leen wax ne yàlla wu na ma ko ma dox ci xaybu Cheikh Tidiane yi xamul lenn lu yàlla jox Cheikh Tidiane yi lu may xegg naa foofu ba yëg ko ba mos ko ba dund ko mu ne janoo googu janoo gu màgg la mu ngi xew guddik fukkeel maanaam guddik dimaas nga xam ne moo di guddi fukkeel ci weeru gàmm weeru gàmmu guddi fukkeel ga nga xam ne moo di guddi dimanche euh, tolloog mille trois cent soixante six ci gàddaay gi ba yonentu gàddaay ba am téeméeri at euh, junni at ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk juróom-benn ci la gis janoo googu ci la ko yàlla wan. mboolem maqaama Cheikh Tidiane lii lépp yàlla nga ko doon togg di ko préparel doona gi mu doon Cheikh Tidiane gis nga yonantu boo ko nekkee doo doo toog ñu naan la dégg nañ ni Jibril wàcc nag nangam nangam da ngay janoog Jibril mu andi leen lim lay wax yu may yonantu doo du nekkati kumpa ci yow da ngay moom xam ne lii mooy may ki xam ne lii mooy nu bóotu noonu la bàyyi def ci maqaama Cheikh Tidiane loolu dafay dëggal ne moom moo doon Cheikh Tidiane looloo doo taxoon mu naan ku ma bëgg ku ma gis aljana nga ngay dug soo waxee wax daal danaan waxuma lii ngir caaxaan waxuma ko ngir ne dama xaal waxuma ko ngir ne dama màndi waxuma ko lu dul yàlla ma digal ma wax ko danaan wax naan ku sikk ci li ma wax maa ngi dégg di gis foo xam ni nit du fa déggee du fa gise góor du fa déggee du fa gisee wali yi du fa déggee du fa gise wallaahi suñ xamoon bàyyi duñ ko jàppee benn wali yi comme wali yi dañ koy jàppee benn kawteef ci kawteefu yàlla ku yéeme ku rëy la yàlla wuññil na ko may Cheikh Tidiane yépp mu janoog moom mu ne gis naa ci janoo googu maa la nga xam ne laa aynun xamul bët raat bu ko gis bàyyi ne keroog ba ma yàlla mu ñilee maqaama Cheikh Tidiane ma janoog moom dox ci pays Cheikh Tidiane xamul lenn lu ko yàlla mayoon lu may keroog gis naa ko waaye wàcc na ci man dund naa ko keroog boobu gis naa loo xam ne nii seede naa loo xam ni bët mosu koo gis wala usnun du caagin nopp samia di ko dégg keroog seede naa loo xam ne nopp mosu koo dégg man dégg naa ko wala xatara mosu toq ala qalbi basharin ci xolu mindeef keroog janoo naa loo xam ne nii mosu toq ci xolu mindeef lan laa janoog min uluwi martabati cheikhina ci kaweeg martabaab suñ sëriñ alqut bi ki nga xam ne nii mooy mooy sang mboolem wëlli yi almaktuumu kañ nëbbu keroog martabaay cheikh Tidiane boobu janoo naa ci loo xam ne nii bët mosu koo teg bët nopp mosu koo dégg mosu toq ci xolu bindéef moo tax lu ñu la wax Cheikh Tidiane xam na lu des xam na lu des loolu lépp nag dafay wane ngëneelu yàlla rek daalika fadlulaa yuti man yashaa jox na ko Cheikh Tidiane kum neex fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur kum neex na gëm kum neex na wet waaye daal bàyyi jënoon ak loolu moom wa tawaxud ak wéet gi mu wéet في مقام التصرف في مقام صفنك المطلق جنجوال في العلوي في عالم بكربي وسفلي عالم بسوفي بيننا يلا ونيل لما كيراي دقل مكو ما جسني شيخ يان دي صفنك عالم بكربي عالم بسوفي عالم يكوي ميمراك هو عينيك الجناك جسنا نبي شيخ تياني دي صفني كونو كنيخه عالم بوسوف بي موي نيت يك جيني ادنا بي جسنا نبي شيخ تياني دي صفني كونو كاي بايرم نبا تك سي dem na ba janoog loolu wal insi ak aalamu nit wal jinni ak jinne wal malaki ak malaaka yi gis naa ni muy soppandikoo ci nit ñi gis naa ni Cheikh Tidiane soppandikoo ci jinne yi gis naa ni Cheikh Tidiane soppandikoo ci malaaka yi fii xayaati ci dundam wa baada ak gannaaw dundam lépp moo fay soppandiku soppandiku amul fu mu yem ila nafqi fi suuri ba ba ñu walee bi yàlla wuññil na ko maqaama Cheikh Tidiane boobu loo xam ne nii nit mosu koo gis mosu koo gis walaay bàyyi suñu waxoon lim ñu war a wax yëpp est ce que duñ sikk sax waaw li buusay wax ci yonent rek moom laay wax loolu buusay nee na yonent bi yërëm gi mu yërëm nit ñi moo tax lam yem taxinna bi ma taxil xuqulu bii hirsan alayna falam nartab walam nahimi nattoowuñ ñu loo xam ne xol yi dañ ciy gëlëm ngir xiit si ñun moo tax sikkuñ gëlëmuñ waaye bu ñu yonentu waxoon lim ñu war a wax dëgg dëgg dëgg dëgg an am am na ñoo xam ne mën naa am danañ sikki sàkk waaye bàyyi lim ñu war a wax waxul ñu ko nëbb nañu boppam rek kawteef gu réy la ci kawteef yàlla yi Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu yàlla wuññil na ko makaama Cheikh Tidiane boobu mu janoog moom xool li Cheikh yaan di soppandikoo ci alam bu kawee bi ak bu suufe bi ak ci nit ñi ak jinne yi ak malaaka yi ci dundam ak gannaaw dundam ba ma ñu walee buftu Cheikh Tidiane yi soppandiku ci loolu wa min ihaatati ak peeg gim ci moom Cheikh Tidiane yi bi jameel maqaamaat ci mbooleem maqaama buy maqaama rek baa yàlla won na ko ni ko Cheikh Tidiane yi peegee wal axwaal yi mbooleem luy xaal baa yàlla won na ko ni ko Cheikh Tidiane yi peegee wal maarif yi mbooleem luy maarifa baa yàlla won na ko mu janoo ni ko Cheikh Tidiane yi peegee wal xaqaayiq mbooleem luy dëgg baa won na ko yàlla won na ko ni ko Cheikh Tidiane yi peegee wa التاريخ اك سيوسوي والرقائق اك يلقي واللطائف اك ينيخي والمنح اك مي والفيودات اك بوب يا رباني يكجوغ يالا لب لو خمني سي يالا لو جوغي لب لي ماغ يالا مبال وخال لي يالا نينا وامنوا بما وامنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم يالا لي واتي شي نتي مول حق حق غوغ يالا واتي شي نتي بي شيخ جانا جيل نكو موتاخ ني مانكو تودي تور وين كو تودي واو gis nga tur woowu ku mosut mboolem xaali yonantu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam fu yàlla nekk di yàlla moom ma nga fa di yonantu looloo waral mu mën a nekk xalifa yàlla looloo waral mu mën a gàddu xaqiqatu muhammadiya looloo waral gannaaw yàlla mooy sang ba waaye Cheikh Tidiane fu yonantu di yonantu ma nga fa di wëlli yeneen wëlli yëpp benn paar lañ nekk wëlli yu ci paari Cheikh Tidiane benn maqaama ci maqaama Cheikh Tidiane la leen roof rek ñu nekk wëlli yu nekk nit ku foor waaye Cheikh Tidiane moom mbooleem fu yonantu di yonantu mu ngi fa di wëlli yu bàyyi nag maqaama boobu la ko yàlla wuññul mbooleem fu Cheikh Tidiane di wëlli yu rek moom xegg na fa di xalifa ñaari maqaama yooyu bokkuñ may yàlla yëpp Cheikh Tidiane peg na ko yàlla yàlla woon ko bàyyi wasilaahi ak not gim not ala quswa maratibil jamii ci gën saa sori martaba lépp kenn ku nekk sa martaba la ci gën a fonk la ci gën sori Cheikh Tidiane ndar képp na ko ba bari xam maqaamu boo seenut baa yàlla woon na ko loolu wa min sariyaani sirri ak ci royaat ak mbootam ba mbootu Cheikh Tidiane ni muy ci lépp di tasaaroo ci lépp nga xam ne foo dem rek yaa ngi fa fekk mbootu Cheikh Tidiane baay yàlla war na ko ni Cheikh Tidiane ni ni mbootam Cheikh Tidiane di duggee ci lépp nga xam ne ni nga xam ne ni ñu ko bëgg ñu ko weddeeg ñu ko gëm ak ñu ko noonoo ak ko sopp ñëpp mbootam ak ci ñoom wa min istimdaad yi ak tëbboo gi mi tëbb meneen oyoon yi ci jëmm yi wa min insanil uyuni ak ci nga xam ne ni mooy insanul uyuni mooy doomu aadama ak jëmm yi wala mooy nagu bëtu bët yi wa ifadati ak bëbbal gi muy bëbbal al uyuna jëmm yi alal uyuni ci jëmm yi bi qadril uyuni ci kam jëmm yi uyun moo di jëmm yi jëmm yu kawe yi bàyyi ma bàyyi ko noonu ku nekk rek loo ci xaatir nga xaatir ko ci Cheikh Tidiane tëbboona ci mboolem maqaama yooyu lañ xamoon yëpp maanaam jël na ko dañ xamul yëpp ñoom uyunoon Cheikh Tidiane jël na ko ki nga xam ne mooy sangu uyun it Cheikh Tidiane jël na fa loo xam ne nii uyun sax yëguñ ko far waaw uyun yi sax mosuñ ko parce que yonent yi fépp ab ku nekk rek jël nga maqaama ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane nag moom la bàyyi wax dégg nga la amri wa hada cheikhu aynu wilayatin tafajjarat min bahri nubuwati saafiya maa ngi gëñ sama dund ne sëriñ bii mooy jëmmi wilayatu te moo ballee ci géeju nubuwatu nekk ku sell di waliyu képp ku naanee ci nubuwatu boo génnee yonantu ngay doon moom rek mooy ki naanee ci nubuwatu génn di waliyu parce que fu nubuwatu di nubuwatu ma nga fa di eh, di moo tax te boona ci insaan waaye mooy bëbbal jëmm yi ci jëmm yi jëmm yi ci jëmm yi moo dugal ruux yi ci jëmm yi nangami ci nangami nangami ci nangami bi xadri ci kam yi waaw jëmm nekk rek la nga la nga yelloo rek la nga war a xam rek moom moo la ko jox wa ijraayi faydihi ak ci dawal ak bëbboom alfayaari gi aji bëbbu asaari gi aji rañaan madaahu ak tàllaloom wala ak lefam ila kaafati ashaabi jëm ci mbooleem sahaaba yi bàyyi nee na yàlla wuññil ni ko kiiraay yi mu janoo ni bëbbu Cheikh Tidiane gi di bëbbee di dugg ci taalibe yi ni faydu Cheikh Tidiane di duggee ci taalibe yi yàlla woon na ko amul kenn kon kon ci taalibe Cheikh Tidiane lu may xam na samay wa minhum jugee ci taalibe yi ilaa saabim jëm seen i taalibe ni bëbb yi di jugee ci taalibe ci sëriñ si di dem ci taalibe yi bàyyi janoon naag loolu xamul lu mu jëlawul ci may Cheikh Tidiane hatta ñam teub xam nako ko teub të ñam tëbb ñañ tëbb bàyyi nee yàlla war na ma ma gis lool bi qadri malil kulli ci kem li nga xam ne ñeel na lépp min al yi cër wa nasibi ak ak ak ak ak jaglel ku nekk la la yàlla jaglel ci cër rek yàlla kera xujil na ko mu xam ko dara um pour ko dara um ump ko ila nafqi fi surna na ba ñu walay buftu bi waaw lépp lo xamne ci Cheikh Tidiane la bëbboo fam wara daanu yàlla wan na ko lu tax parce que affaire dañ laa wax ne Cheikh lu jugee Cheikh Tidiane mooy jëm ci mbindeef yëpp waaye lu jugee Cheikh Tidiane ci bàyyi lay daanu lu jugee ci bàyyi mooy dem ci mbindeef yi moo tax moom li Cheikh Tidiane tëbb Cheikh Tidiane fi mu war a dal foofu yàlla wan ko ko ndax mu mën koo sotti foofu ndax mu mën koo sotti foofu bu mu ixtisaas asaabil faatihi ak ci jagoog ñooñ asaabul faatihi maanaam salaat ñooñ salaatul faatihi jagoo giñ jagoo bi nuuril waadex ci leer gu leer ga والربح الراجع اكبر نفيس قول لنغغا نيون في صلاه الفاتحه لما اغلق يالا جغل لين جغل جغل لير غو غنا لير غا بنفيس غي غنا كاوي وحوزيم لاق نيوم نيوم بروم صلاه الفاتحه ما لا خمي يحيط دو بيك موم الا مانح الفضل لمي كي جوخي غنيل زو تولي كي بروم ماي ñiy wér de salaatul faate yàlla may na leen ngëneel loo xam ne ni yàlla rek ko xam moom miy joxe nga ngëneel moom mi maye yàlla bàyyi nee na keroog yàlla wuñul na ma kiiraay gi ba ñooñ salaatul faati lañ xam ci may ak ci leer ak ci bénéfice ak làq gi ñu làq may yoo xam ne nii àddina yëpp buñ daje woon di ko melal mënuñ koo melal yàlla rek xam nu mu toll keroog yàlla wan na ma ko war a salaatul faati ku bëgg mucc dee ko wér lu bëri bàyyi ne keroog yàlla wan na ma loolu lépp loo xam ne nii Cheikh Tidiane la jógee ci may foo bàyyi xam ko ndax moom moo koy tasaare wa min taqsim asaabil maqaamaati ak ci séddale borom maqaama yi taxta sufuufi asaabi yi ci ron sàppe ay saxaabaam dégg nga képp ko am maqaama ci yàlla rek yaa ngi ci yaa ngi ci taalib taalibi Cheikh Tidiane nga bokk moo xam tariqa boo mën a xuyoo ak noo mën a xuyoo yaa ngi ci ron sàppi taalibi Cheikh Tidiane yi nga xam ne naanal na leen ci xëy bu bu la naan doon ci xëy bu doo mën a doo mën a dugg ci daayiratul wilaaya doo mën a dugg ci wëlli keroog yàlla wan na kuréel alfaay dina ñëwee gañe bi ci Cheikh Tidiane ñi nga xam ne ñoom la yàlla jagleel Cheikh Tidiane moom ñoom la yàlla jagleel dara ci may Cheikh Tidiane ñoo ñëpp yàlla wan na ko su fu ñu nekk ay sàppe nag sunu fan di ay xeet ulu fan di moo tax nga gis leen wël yi ñii ne tariixa nangam lañ bokk ñii ne tariixa nangam lañ bokk sàppe yee wutee xeet yee wutee bari nañ lool waaye ñoom ñëpp Cheikh Tidiane leen nàndal bàyyi yàlla wan na ko nu Cheikh Tidiane di nàndalee ñoo ñëw parce que moom moom mooy kaas bi Cheikh Tidiane di nàndalee waaw lu Cheikh Tidiane di tànq ci moom la koy tànqe nàndal ko ci moom la koy nàndalee moom ngay sex gém bu dee doon bu meew mu ñuy naan nga ne moom mooy kaas bi ngay teg sa gémmiñ di ko naan kala ko nàndal nag mooy Cheikh jaane waaye ci bàyyi la ko jaaral waaw xam nga rëbëne lu mu génn ci ndox foo mu jaar si raakol rëbëne bi xeg si si yow waaw bàyyi mooy rëbëne boobu luy xel ci moom lay xelle nga ne nga ne nga ne surtout euh, baa la naan waaye forage bi dafa am fu mu jaarale ndox ma moo tax ndoxam Cheikh Tidiane mi yëpp bàyyi xam na ko ak ñam war a nàndal yëpp ak ku nekk la nga root lu toll nii la nga root lépp yàlla won na ko lii daf lay juñu ne la moom dafa doon Cheikh Tidiane doon nag dëgg ci janoo bàyyi tugg rek kii rek ne nangam nangam yàlla da ko wuññil mbir yi da ko wuññil mbir mu jënoog mbir yi xaqiqatan xam mbir yi ca dëgg-dëgg doon waaja wa min kayfiyat imdaad yi ak ni muy tëbbee lil alina ñeel ña kawe ña bàyyi na yàlla war na ma boon ma façon bi Cheikh Tidiane tëbbee ñu kawe وتنزل اقوات جمي وات لافادته دي li للاسفلين yi باين bëbb ورنما شيخ ñu وات جمي وات دي yàlla war na ma Cheikh Tidiane wàcc gi mu wàcc di bëbb tëbb ñu suufe ñi aalamul ulwi ña nga xam ne ay leer lañ yàlla war na ko ni leen Cheikh Tidiane di tëbbee ay may ñi si suuf nga xam ne ay jëmm lañ yàlla war na ko ni ndax bo xamutoon loolu mom du meuna jotali kulun kep bi qadri ma xasawu ci kem li nga xam ne jagleel na ko bii ci moom alfaayilu aji def almuxtaar aji kuñ tànn ki ku nekk nag la la yàlla jagleel ci may rek lu yem noonu la lay Cheikh Tidiane di tëbb ku nekk la la yàlla jagleel ci may lu yem noonu la lay Cheikh Tidiane di tëbb bàyyi nee na yàlla wuñil na ko kiiraay ba mu janoog ku nekk lu toll ni la ko la ko Cheikh Tidiane di tëbb ak nam koy tëbbi bu mu ne ixtisaasi fuqaraayi ak jagoog ñi ñàkk ci taalibe Cheikh Tidiane bi sëri lut fi ci mbootam ñeewante alxusuus yi gi aji gi ka jug jagoo baada lut fi gannaaw ñeewante alumum yi gi aji matale yàlla yërëm gi mu yërëm doomu aadama yëpp wala yërëm gi mu yërëm julli ñëpp daf see jegleel ñi nga xam ne ñooy fokk fuqaraaw yi ci taalibi Cheikh Tidiane ñooy fuqaraaw yi nag mooy ñi nga xam ne yàlla rek lañ soxla soxla wañ leneen lu ma yàlla yàlla daf leen jagleel beneen façon yërmaane goo xam ne nii bàyyi nee na yàlla wuñil na ma façon yërmaane goo ma xam naka la nan lañ ko jagooyee kon xam nga ne kii fu Cheikh Tidiane di Cheikh Tidiane rek mu ngi fa di doon Cheikh Tidiane di xalifaam moo tax mu mën a xam yëpp wa min fawzihim ak jagoo giñ texe giñ texe ñoom taalibe Cheikh Tidiane yooyu bil xam ci si juróom allati yi nga xam ne maa danaahum jegewul leen fiyaa ci ñoom xeyruhum kudul ñoom laa man sabaqa du ko jiitu wala wa man sayalaq wala kuy ñëw taalibe Cheikh Tidiane yi nga xam ne ñooy fuqaraaw yi Cheikh Tidiane yi mooy ñi nga xam ne ñoom yàlla rek lañuy lañ jublu yàlla jagleel na leen juróom yoo xam ne kenn jegewul leen ci mun a bu juróom yooyu nag tuddee ko neneen waaye ba léegi benn la rek soo xaatiree rek xegg ca juróom yooyu kenn jegewul leen ci ñoom taalibi Cheikh Tidiane yooyu du kuy ñëw wala ki paase foo nga bokk si ñooñu rek mën a jegoo juróom yooyu xam ko xam gu wér dégg nga ñooñu niñ jegoo juróom yooyu yàlla war na ko képp ku war a jegoo si juróom yooyu rek bàyyi xam na ko ndax moo la war a tëbb juróom yooyu kon war na laa xam war a xam la nga ci war a xam ak sa ci xam gi ni mu moo tax yàlla woon na ko ni taalibe Cheikh Tidiane yooyu jagoo juróom yooyu juróom yooyu nga xam ne kenn jegewul leen ci du kuy ñëw du kuy paase nga ne ko juróom yooyu mooy ban mu ne soxbatu mooy xandoo wal mahabbatu ak bëgg ñaara ko wal qabul ak nangu wal ridaa ak gërëm wal amaano ak kóolite da koo sàng rek فيالها تيلو من خمسين تجروم يوقمنا لا تنالو دنكام إلا بمحد فضل لماجي سلق غنيل فضل الكريمي لماجي سلق غنيل أجي تردجي المنان كاجي خيولي جروم يوي تي جروم يوي مني تي جروم يوي جروم لا يوقمنا فاو يالا متد مي خيولي دفل لغنيل غمان كوام جرومي مقام يوي نيكو تالي بشيخ تياني جابو دينغا كوكو يالا ونكو ومن تقسيم رجال طريقته اكسي دلجين سي دلغوري تاريخام المحمد يجي كجو محمد الكامل نيوي مات اصحاب التربيه ني يراتي الى 300 مي نيت تيمر و 310 اك فوك اك نيت من يالا دفنا سي تاريخ الشيخ تجاني اي غور يو خمنني سا سو نيك داني مل نيت تيمر فوك اك نيت كو موي رجال الغيب سيدل جين سيدل غور يو سا سو نيك اك جامونو بو نيك باي يالا هوني لوكو بام خم غور ньо ñal lañ jamono bu nekk yan góor yooyu ñooy góor yooyu ñooy ñan ak ñan kan ak kan la niñ leen séddalee yàlla wuññil na ko ba mu teg ci bët waaw yow fi mu nekk nii rijaalu tariqa yi ci jamono bi mën naa buñ la ko waxoon xamoo ci kenn bàyyi nag moom jamono bu nekk ba ba buft bi di wal góor yi jamono ju ne xam na leen waaw parce que mooy doon na ma xaama ba moo leen def góor ga kon war na leen a xam loolu lay tekk gis nga yàlla ba muy fal xalifaam daf koo xamal tur yëpp yan tur tur yu kawe ya Cheikh Tidiane nee na bu doon xarak bëyeeg mbaam la ko yàlla xamal loolu ñëpp xam nañ ko loolu nga leen nekku ci <laughs> waaye nag daf koo xamal tur yu kawe yu làqu yi nga xam ne ni boo ko xamee da nga xam waa ji mooy kan ak li mu war a liggéey lu tax yàlla xamal xalifaam bi tur yooyu ndax xalifa bi moo war a tëbb mbindeef yi te bu xamul tur yi du xam mbindeef bi li mu war a liggéey ak lu mu jegoo ak lan la koy tëbb moo tax kuy xalifa yàlla rek mboolem tur yi day wuññeeku ci yow ku nekk la mu war a liggéey la mu war a taxawee na mu war a mel nga xam ko man ko koo tëbb moo tax bàyyit comme que moo doon Cheikh Tidiane maqaama ñi Cheikh Tidiane war a tëbb ñu war a naanee ci moom yépp dana leen xam xam lañu war a jegoo xam maqaama ti Tidiane pour mu mën a jox kenn ku nekk xaqam moo tax yàlla wuñul ko ñi ñuy ñuy góor yi tarixa boobu di ñetti téeméer fukk ak ñett tolloog lii mu yonent yi ku nekk taxaw ci maqaama bu yonentu ci yonent yooyu ak fukk ak ñetti xismanti تحقيقا لولو دغال للوراثه المحمديه نيل نورك محمد الشيخ تياني دا دا دون يونت بي صلى الله عليه وسلم موتاخ سي غوري تاريخ ام نيت تيمر فك نيت يو خامني كو نيك ري ياغي تخي ام مقامه سي مقامه سي مقامه يونت يو كاجي غنا فور موي نيك خطب زمان سي جامونو جو نيك موي تخي مقام يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم والملة الحنفي عنيفية أك دين جو جنگ ولس بوكالي موم لا ني دغال ndax diine jooju mooy diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam te diine lislaam dégg nga ñett téeméeri yonent fukk ko ñett ñoo fa nekk dégg nga moo tax tariqa yi ñett téeméeri yonent fukk ko ñett fay nekk parce que di tariqa du dara lu mooy lu mooy lu mooy dégg nga tànneef yi xam-xam yi si diine lislaam loolay tariqa meññ tam lislaam mooy tariqa mi nu am na ci ñoom arboona ñeen fukk yu rab rabbuuna danañ yar bil himmati ci yitte ñooñ tariqa bi am na ñeen fukk yoo xam ne ni ci yitte lañ yere wasalaasu la ñett ñoo xam ne bi laxsate ci gendeeku dañ lay xool rek nga yaru moo tax dajeeg day dajeeg wala yàlla yi baax na waaye suru na ñaar fukk yoo xam ne bil xiltati ci jaxasoo boo jaxasoo ak ñoom rek yaru foo nga jaxasoo ak ñoom waa seetlu fukk yoo xam ne bi luqmati ci lekk boo ànd ak ñoom lekk rek boo bokk ak ñoom lekk rek yow yow defar nañ la wa sama nuna juróom-ñett fukk bi liqaay ci dajee xam ne juróom-ñett fukk yoo xam ne soo dajee ak ñoom rek sa affaire baax na moo tax di dajeeg ñu baax ñàkk baax hmm. wa arbaatu ñeent loolu loolu nag sax yonente amoon na ko moom saxaaba yi bu ñu dajeeg moom rek fort yore garaatu saxaaba ku dajee moom na xamoo ma xaam woog wa arbaatu ñeent bi siri ci mbóot am na ñeent ñoo xam ni si secret lañu yere wa tisant ansra fukk juróom-ñeent bi zikri si tudd yàlla ñoo dañ lay jox nga tudd yàlla ñu yer la kon ku nekk ak ni yaraate hmm. seen façon yoon yi ñu yeree bokkut wa min ashabil fayd al khasi ak si ñooñ faydu gu aji jagoo al maadi gi aji passé wal aati ay aji dikk wal xaali ak aji teew faydu bi nga xam ne faydul xaas la goo xam ne ni dafa am ñu ko jago ña ko yelloo bàyyi na ne yàlla wuññil na ma kiiraay ba ma xam leen moo xam ñi passé naan ca faydu boobu ak ñuy dikk di naan ci faydu boobu ak ñu teew naan ci di ci naan ci jamono bi ñëpp yàlla wuññil na ko ba mu xam leen kon moom yàgg na fi de ومشاهدتي أو مشاهدة أكسير جما سيرة الحال حال ذي المغرب جاي برمك تمران كي الجمالي كي جكتار ولا ذي المغرب جاي برمك سو الجمالي كي كي جكتار بولم دنگا دنگا حال حال بينا قمني حال يو تمران كي يو رفري يلا وانا مكو هني المكيراي وما جنونهم ومشاهدة أكثر جما سيرة لسيرين مبوت مو قمنا دنا الفائدة الأحمدية فائدة أحمد بي bépp mbóot goo xam ne ni faydu Cheikh Tidiane bi gàddu na ko yàlla war na ma ko ba ma jënoog mbóot moomu jumlatan moo xam boo leen boolee ñoom ñëpp wa tafsiran boo leen teqalee benn par benn lépp loo xam ne ni secret la ci fayda rek bàyyi nee na yàlla war na ma ko moo tax nit mënul génne xam-xam buy dëgg ci fayda lu mooy ne boo delloo ci waxu bàyyi fekk junj na ko ndax moom yàlla war na ko mbóot yëpp bu kenn yaakaar ne xam nga xaal boo xam ne danga yaakaar ne lii sax baay mën naa am xamu koon kon wérut lépp loo xam ne nii mbóot la goo xam ne faydu tijaane gi xenu na ko rek bàyyi na ne yàlla wuññil na ma ko ba ma jëloog mbóot moom ba ma jëloog secret boobu kon fayda kenn mënu ci indi lu bàyyi xamut loo ci indi te bàyyi xamu ko wérut waaw ndax boo teqalee mbóot yi benn par benn bàyyi xam na ko seede na ko waaye it boo dajalee mbóot yëpp xam na xam na ko wa taxaquqi ak dëggu gi ma dëggu taxaquq mooy ma dem ba nekk ko waaw bi mushahadati ifadati yi si seede ak bëbbam laxaa ñeel faydu wàllal kulli ci lépp ni muy bëbbalee faydu boobu ci lépp dem naa ba am ci taxaquq mooy dem naa rek ba man maay ki nga xam ni maay bëbbal affaire yi ci lépp loolu di taxaquq rek tam lii kan di maye. wa tanwilan di joxe ni muy joxe ci faydu boobu ni muy tëbbee yàlla dem na ba woon ma lépp wala wala waxoon na ci xasida ba bi faydi faydul barri wal baxri jumlatan wa inni nafsun lil amini wa sahbihi nee na ci faydu jéeri ji ak géej gi yépp ci faydum lay jóge waaw ci faydu lay jóge fa ahmadullah maa ngi sant yàlla kon yàlla wan na ko léppi Cheikh Tidiane maanaam maa doon Cheikh Tidiane lay wax ji teg lii ku ko mënul rek mënoo doon Cheikh Tidiane nga ne xaali Cheikh Tidiane dara humpul la ci dara réerul la ci mënoo doon Cheikh Tidiane fa ahmadullah maa ngi sant yàlla alazi bi nga xam ne jaaxle def na la woon ñaan ko almina te xéwal alayya ci man maa ngi sant yàlla mi nga xam ne nii de may na Cheikh Tidiane xéwal sama kaw parce que mooy lan mooy may yi ma xam yëpp ci moom la jógee waqadara dogal na bi fadli ci ngëneelam ijraul faydati dawal faydu bi alayya ci man si ngëneel yàlla ci la yàlla dawalee faydu bi si sama kaw mu jugee Cheikh Tidiane nga xam ne man maa war a doxal faydu bi lii rek mooy faydu bi mooy maqaama Cheikh Tidiane may Cheikh Tidiane yëgeegu Cheikh Tidiane moom la lay bàyyi di la jottali Cheikh Tidiane jottalu la lu mooy dégg nga maqaama yonent bi yëgeegu yonent bi may yonent bi si yonent bi jottalu la lu mooy mbóoti yàlla la nag. waqaala mu ne xus haa jël ko mu ne jox na ma fayda bi ne ma jëlal yàlla nee na ma jëlal fayda bi mu ne cheikh yi mu jugee cheikh tijaani ilayka jëm ci yow wa minhu te mu jugee ci cheikh tijaani ilaya jëm ci man mboota ngoog waxa ngoog bàyyi nee na yàlla daf ko jox fayda bi ne ko jëlal fayda bi mu mel ni làmm ñu xaalam daf koo laaj fayda bi fu mu jugee mu ne ko ci cheikh tijaani la jugee jëm ci yow waaye nag mu jës bu xaat ko yoonu ñaareel wane ko noy ci yaxtiyaan la jógee jëm ci man waaw ci yaxtiyaan la jógee waaye ci man la jëm ci yow la jëm ci man la jëm moo tax dégg nga mooy maqaam bi nga xam ne nii moom la yàlla la wax mu ne bàyyi yàlla la nag ku ma ko tuumaale yaa ko wax waxuma loolu li wax daal moom la yàlla la ku ko mënul dégg nag mënul ko dégg dégg jëlal faydu bi mu jugee Cheikh Tidiane jëm ci yow waaye mu jugee Cheikh Tidiane jëm ci man moom la xadis bi fa bii yaarifuuni ci man lañ may xamee yàlla nee na ci yàlla lañ koy xamee waaw loolu ma xam ma ma xam bu mu tegaat si leneen lu gën a yéeme ne ko wa min nii faydu boobu sax jugeewul Cheikh Tidiane ci man la jugee ilayka jëm ci yow gis nga de lu yéemee ngoo ci Cheikh Tidiane la jugee. jëm ci yow kooku Cheikh Tidiane ak Baye rek fa nekk hmm. mu tuddaat Cheikh Tidiane ne ci yàlla la jëm kooku Cheikh Tidiane la jógee jëm ci yàlla hmm. waaye mu tuddaat yàlla ne ci yàlla la jógee jëm ci Baye foofu yàlla la jëm ci Baye hmm. dafa tudd Cheikh Tidiane jëm ci yàlla ci yàlla jëm ci Baye Cheikh Tidiane Baye yàlla yàlla ku nekk am wa war na ko ne ko diw la. waaye nekku fa yàlla rek fa nekk loolu la mu ne ko waaye wa min ka ci yow lay jugee yow baay ilayhim jëm ci mboolem fi jëlal fay du baa googu ci yow jugee jëm ci mboolem mbindeefi wax juree rëy nga moo tax boo gisee Cheikh Tidiane da nga xam ne dëgg-dëgg yàlla rek fa nekk boo gisee Cheikh Ibrahima da nga xam ne yàlla rek fa nekk waaye may gu war a xam jëm ci mbindeef yi ci baay lay jugee haada lii wallaahi maa ngi gën ci yàlla bàyyi ne maqaamul maqaama la boo xam ne zaabat sey na fii ci moom anu nga fii ci maqaama bi anu wëlis ko dégg nga zaabat sey na fii ci moom anu wuutu ko law ñeel ko kulliyati sama lépp maqaama la boo xam ne sama lépp fa seey nekkatuma fa wan dëkkat tasaaroona jumlati sama mboolem jëmm ci maqaama la boo xam ne ba mu fa yéegee سما لب التخارو مول مول مول مول وح تبيت بودن عبد فان ليس فيه بقية وما هو إلا محمد وأحمد وما هو إلا ما وراء الأقاويل من جانبي جيخنا دارا دي سوتي موم نيكول موي محمد اك احمد نيكول موي لا سي غنا واخي كو نيك اك نوكو مانا ديغي مقام بو باي سو خوله بوم دا فاي غيس ني موم موي بروم مقام بي kon maqama baa fa waaye nag bu xoolee maqaam bi du fa gis lu mooy Ahmad du fa gis lu mooy Muhammad du fa gis lu mooy wara al aqaabiri la ci gannaaw waxee loolu la fay gis su ko defee mu sadd fay ba ne maa kuntu adri man ana wala bada lii min huna wala boog man huna ذابت هنا كليتي وغبت عن, هوي عن هويتي وما رجوت أنني دريت أنني أنني وما دريت ما جرى فما جرى لمن جرى ما كنت نكم أدري دي قمن أنا ماي كان كرق مقام بوبو ولا بدا فين لي نيل من هنا ني نيك في كان فين يتي يالا رك لاي جنوب ذابت سينا هنا في كليتي سملب وغبت فدنا عن هويتي ولسمه سمه هو سما nekkatuma fa wa maa rajawtu yaakaaruma an na nii ne man dareytu xam naa an na nii ne man an na nii maay man yaakaaruma ne sax man xam naa man maay kan wa maa dareytu xaw ma maa jaraa lay li daw lan la fa maa jaraa lan moo daw li man jaraa ci kan kan la dawal yëpp xaw ma ko xataa tabaddat ba mu feeñ shamsuhu jantu Cheikh Tidiane waana xani mu doqwanteeg man nafsuhu jëmmi Cheikh Tidiane wa shamma mu foon kulli sama lépp tiibuhu teeg Cheikh Tidiane fan jaabu mu wuññeeku an nii fa man xaybuhu fàddug Cheikh Tidiane googu nga xam ni moom a jàppoon kon am na fanaaw ci baytu njëkk yi zaabat an nii kulliyati wa ribtu an huwiyati wa maa rajawtu annani daraytu annani annani wa maa daraytu maa jara fa maa jara liman jara yooyu fanaaw la baytu yi nag mu am ci baqaaw ràññee maqaam bi bu baax ne xataa tabaddat shamsuhu wa aanaqani nafsuhu وشم كل تيبه فنجاب عني غيبه فلا فرد كي دقة ولسكم مدلي يج ما خام يكون وزن عبد فارن جهنا ده وينك يجنا نمومي عبد با جناوكا يجنا نمومي عبد ذاتي موي بيب موي جام جمجة نخلن نخ مومنا جام يالله تيم ولا مقامي مقامي فين مواجه nekk abdu zaati nag su ko defee waaye nag xam na ne Cheikh Tidiane moo ko doqwanteeg te lépp luy tee Cheikh Tidiane léppam foon na ko loolu mooy maqaama Cheikh Tidiane yëpp mos naa ko su ko defee xam baqaaw nag fan jaaba an nii xaybuhu bàyyi nga mu ne wala maa tam ba matee lii ñeema al ixsaasu yëg ba nga xamee ne léegi nag yëg naa di borom maqaama ba di abdu zaat bi kum neex ak kum naqat maa lay nandal moo tax daan na wax ne dégg naa daan na wax ne waxal taalibe yi di seede Aliyu waxal taalibe yi ñu liggéeyal ma ku ma liggéeyut bis dana ñëw nga rëcc boo demee ba xam ne mbir yëpp mu ngi sama loxo man caafal yu min ñaam yëg-yëg ñoom seen kiiraay dañ xam nañ ne maqaam bi maqaamam rek la bu ma demee ba yëg kon yëg na fayda xale mii nekk sama big bi di saaxibil fayda mu ngi ci loxo borom faydu bi waaw dafa bëgg wax ne moom mooy Cheikh Tidiane rek sama big bi ma bindee mu ngi ci loxo borom fayda bi borom fayda bi kan la Cheikh Tidiane waaye moom mooy Cheikh Tidiane daan na wax ne yaa man du Tidiane ay ay musaafahatan fi beyti Ibrahima tul fiha mukafahatan yow mi bëgg Cheikh Tidiane fi néeg Ibrahima nga koy fekk boo demee rek fekk fa Cheikh Tidiane moom mooy Cheikh Tidiane ka annahu mel ni big bi xittaasum kayit la big bi mooy kayit gi léegi léemee ngi moom. fa amara mu digal saaxibal xatmiya borom xatmiya saaxibal fayda ci borom faydu ki nga xam ne mooy borom xatmiya digal borom faydu an yaktuba mu bind fii ci moom sabaat astur juróom-ñaari bind juróom-ñaari rëdd فإذا به لك مم قد كتب بيننا بم نكو بيننا جروم نياري رد لك مم بين نكو بياك موتا تجي ليار يغي نغيس ني نغي ليا كان تجي ليار لا يو خامني دا فاي دورا خيوال دا فاي دورا نانغام دير دنج نان نيم كوي ديف نيك افا ني واخ ديف كو سو ديف نان يالا ديف لو موي تحصيل الحاصل امال لي حمون با وجل الله ولا عبس جومنا يالا ديفو لي حمون با بري يالا دي حمل كات wala tëji li génne maqaama bi sàngam ndeka maqaama bi génn na bu yàgg <laughs> yàlla ku yéeba waaye si sa gis yow maqaama yi mu ngi door a feeñ moo tax suñu jamono yi kawteef yu bëri feeñ na ci waaw del xool vidéo seetaanal vidéo ba muy daw doo gis li ci gannaaw doo gis li ci kanam waaye fekk pare na bu yàgg pare na bu yàgg mu fa lu nekk mu ci palaasam nam nekkee ci palaasam nam mel ci waxtu woow boo fa yeggee rek daal di jënd moom waaye nag yow xamoo li passé xamoo luy ñëw kumpale ci yow ñëwagut luy ñëw ñëwagut xamagut waaye am na bu pare. li passé passé na waaye mu ngi fa dara ju passé wuuf boo delloo vidéo bi gannaaw rek gisaat ko fa mu nekkoon boo taxawalee vidéo bi nag da gis affaire yi partie par partie partie par partie partie par partie partie par partie partie par partie ba mu jeex. Euh, loolu booy def statut boo duggee ci video bi bës noonu da boo xoolee ci kaw da nga gis daf lay defee rëdd boo xam ne nii action bu nekk. mu ngi fa mu nekk ca waxtoom ci na mu fa nekkee waaye boo xool suuf bi daw moom mënoo gis action yi comme noonu ku seede jëmm ji sa jëmm doo gis dara lu mooy ne lépp nekk xam na bu yàgg lépp ngay gisandoor ci menn jamono ci menn waxtu waaye boo seede mbir yi ci ni muy dawee nii su ko defee mbir yi dafay daw di daw di daw di daw nga yaakaar ne lii lii ñëwagut lii ñëw na lii paase na lii paase wu lii mooy xew lii mooy fekk lépp pare na bu yàgg. bu fe munako bindal juróom-ñaari de ndekk bind nako ko ma ngi sant yàlla ala ma wahaba ci lam may asatul awal rëdd dugu njëkk moy asabul masani juróom fatiha la bind mal basmala ànd ak bismillah al jami' gaaji dajale asrar al maani mboti maanaa yëpp mom la bind nga xamna ni turu mag woo fa la nek rëdd bu njëkk bi loolu la fa bind asatur saani rëdd bu ñaareel bi mu bind fi alif laam miim ra saat nuun qaaf yàlla xam loolu mi firi loolu la bind sëri du ñaareel bi asatru saali sëri du ñetteel mu bind fa xayun xayumun xayun ka ji dund xayumun ki taxawee lépp قهار كي نطلب عليم اجي خم قادر اجي ام كاتن لطيف اجي نيمنت كريم اجي تد يلا خم خام يوي ستر رابي رد نينتل بن في اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق بم جيخ الى بم جيخ وكتب بن ما عندك سعد فاتح غوغ الحروف الاربع نينت حرف التي خمني بهاس نينت حرف يوي يدرك لني جوتي الفرق تقل بين ظاهر ديغنت ظاهر والباطن اك باطن والمنقول اك لن تخل والمعقول اك لن يقل والمقبول اك لن نغ والمطرود mamduud ak lañ dàq wal maftuuhu ak ak lañ ubbi wal maxjuub ak lañ xiir si ñeenti xaraf yooyu lañ koy xàmmee ñeenti xaraf yooyu boo ko xàmmee xàmmee lépp xàmmee zaahir xàmmee baatin xàmmee la ñuy xelu ak la ñuy toxalu xàmmee lañ nangu lañ nangu wut lañ kañ may ubbi kañ xiir ñeenti maqaam yooyu boo ko xàmmee xàmmee lépp mu daal di ko bind foofu ci ba mu bindee salaatul fatiha wa satrul xaamis du juróomeel ba mu bind fa qawlul xaq waxam mooy dëgg waxam xaqu rek la wala wu ñaan la ko almulku nguur loolu la bind ci maqaama juróomeel ba kon maqaama bu njëkk ba ismulaay azam rek fa nekk maqaama ñaareel ba juróom-ñaari asamaan yi muy alamoon bi yëpp làq na ko maqaama ñetteel ba juróom-ñaar yi maqaama ñaareel bi làqoon yëpp làq na ko maqaama ñeenteel ba doon na lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem xaqaayiq dajeef ci moom ngay xàmmee lépp maxaama juróomeel juróomeel ba nag waxam mooy dëgg te moom mooy mooy sangu alamul mulk maxaama juróom benneel ba ñu ngay férti férti naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mboolem koo xam ne alamul mulki sotti na lam la sotti yow doo yëg lu mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah juróom benneel maxaama boobu asaturu saabe maqaama juróom-ñaareel ba huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa ñoom juróom-ñaar yi nga xam ne nii dégg nga moom la maqaama ñaareel ba ñetteel ba moom la ñuy huwa huwa huwa huwa huwa huwa juróom-ñaari huwa juróom-ñaari huwa la def ci fanaaw dee ci laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah bu ngeen fa deewut yàlla na leen yóbbu àllaaxira ngeen dee di wax huwa huwa bu defee mu bind juróom-ñaari maqaama yi ba léegi yii rek lay nit ñi dund yii rek dund maqaama yi yii rek fa masaha mu raay al xatmu xatmu ala sadri sama dënn mu ne ki nga xam ne ni moo di xatmu moo tëj lépp raay sama dënn wa daa mu ñaan allah yàlla an yutii la mu guddal umri sama dund ba pare mu ñaanal ma yàlla yàlla may ma fan wu gudd wayu diima mu saxal bari sama mbaax wayax diyéen yi mu gind ma wayar suqnaa mu wërsëgal ñu maqaamal xubbi maqaama mbëggeel bëgg yàlla wal xurbi ak jege yàlla loolu la ma ñaanal ne yàlla yàlla guddal sa fan saxal sa mbaax yàlla jubal la yàlla nañ yàlla wërsëgal maqaama bëgg yàlla ak jege yàlla su ko defee ba mu ma solee lii lépp dafa raay suma dënn ñaanal ma lii bàyyi ne walhamdulilah ñeel yàlla rabbil alamin kay borom mbindeef lii dafa janoog moom subhaana rabbika tudd na ma sell ak sa borom rabbil izzati kay borom ak jom maa maaye si fu na ci la ñuy melal wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk si yonent yi walhamdu cant li laa ñeel yàlla rabbil alamin kay borom bindee lii la baay gis yowmal ahad ci bisu dimanche <coughs> dégg nga dix rabiul awali ci fukk ci weeru gàmmu ama 1366 atam junne ak ña ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk juróom benn hijré ci gàddaa gi la bind lii mu ne alhamdu xam naa nag guddi dimanche la ko gis waaye xëy ba mu xëyee ci bisab dimanche la ko bind alhamdu ah, ah, eh, ah, xam naa ana laa ne yàlla xadiru ajaatan la ma laa kulli ci lépp lu nekk moo tax dootuma bëri ci werante waa ana laa naka yàlla xad aata peeg na bi kulli seen ci lépp lu nekk man xam-xam xam naa ne ndeke lu nekk yàlla xam na ko loolu dafa dem ba xam ko xul waxal inal fadla naka ngëneel bi di laay mu ci loxo yàlla yuuti dana ko jox ma ne saaw ku ko soob mu ngi lay wax yow yow mi nga xam ne ku bëri werante nga waxal lool rek wallaahu yàlla waasiun aji yaatu la xeeg am na foo xam ne xeggoo fa de yàlla ku yaatu la de am na foo xam ne xeggoo fa yàlla de bul weddi ka fa yegg waaw waaw di la gërëm nga alimun yàlla aji xam la kon loo xamul bu ko weddi ndax yàlla mën naa xamal ku ko neex yaxte su dana jagleel bi rahmati ci yërmaandem googu man ne saa ko ko soob te bàyyi la soob jagleel na ko ko kum neex jagleel na ko kum naqari jagleel na ko walaaw yàlla su fat li mooy borom ngëneel alazim nga aji màgg loolu moo doon machet bi nga xam ne sëriñ bi eh, gis na ko إن أريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته